أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشكره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثله ولا ند له ولا حد ولا جث ولا أعضاء له أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له هو أحد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول جل وعلا في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu boroom subhanahu wa taala di ko dimbali ko di ko ñaan mu jéggal ñu suñu bàkkaar di ko ñaan mu jubal ñu di ko sant moom subhanahu wa taala ci xéewal yi ñu defal yi ñu ko mënul a sant di ko ñaan mu gind ñu teg ñu ci siraatal mustaqim moom mi nga xamante ni képp ku mu gind teg la ci yoonu jub texe nga waaye képp ku mu seetaan ci maandu teem ba nga sànq amul kenn ku la mën a jubalaat ñu koy ñaanoon subhanahu wa taala mu ne teg ni fi yoonu njub mu yoonu sirat al mustaqim di seede ni amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala bokkaale ñeelu ko du nawle ci kenn jurul kenn te kenn juru ko di seede ni suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la soppeem la xaritam la yal nañ ci yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ko topp ci njubam di rafetal ba ba borom bi subhanahu wa taala di doon suufam si mbokk yi ñuy dénkaat suñu bopp dinañ dénk ragal yàlla subhanahu wa taala comme ni ñu ko waxee ci alquranul karim yàlla mu ni innamal muminuuna ixwa nee na way gëm yëpp ay mbokk lañ kon fa aslihu bayna axawaykum na ngeen rafetal mbokkoo gi dox ci seen diggante wattaqullah te ngeen ragal yàlla laallakum turhamun ndax ngeen bokk ñëwee texe yi yàlla ñu yàlla boole suñuy texe mbokk yi suñu xutbay tey ci tomb aaya boobu la di al uxuwa mbokkoo fi diin ci lii di diin ginnaaw bi ñu xamlee lan mooy mbokkoo mbokkoo di askan bu bokk lii di ngeñu lii di geñu wala lii di meen geño mooy ñu bokk baay meen mooy ñu nga xamante ni ñu bokk ndey ak lu mu sore sore sore sore nag mbokkoo la wante li ñu namm ci mbokkoo gi mooy mbokkoo goo xamante ni ñii dañu bokk ak pas-pas ci diine muy diine islam yàlla suñu borom subhanahu wa taala li ñuy wax ci aay bi ci alquranul karim mu ni yaa ayyuha nnaas inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafu inna akramakum cinda allahi atqaakum yàlla suñu borom subhanahu wa taala ci aaya bi mu ni ey yéen nit ñi amul kenn ku mu bàyyi nit ñëpp la woo ci li mu woote mooy ni inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa man yàlla maa leen bind ngeen sosoo ci aadama ak aw góor ak jigéen wa jaalnaakum shuuban ma def leen nag ay génération yoo xamante ni génération la ci kaw génération wa qabaa'il ak ay tribu ay xeet yu wuute mu ni ànd ak loolu yëpp dama ko def li taarafu ngir ngeen xamante mën a jariñante mën a jaamu yàlla ci seen diggante ka gën ca yéen nag ca man yàlla mooy ki ma gën a ragal mbokk yi lii di al uxuwa mbokkoo ci diine yàlla suñu borom mu ngi ci àdduwaat ci alquranul karim di wax ni innama almuminuuna ixwa mu ni way gëm yépp de ay mbokk lañ kon nañu rafetal mbokkoo gi dox ci suñu biir suñu diggante te ragal yàlla ngir mu rab ngir mu yërëm mu ñëwaat di wax ba tey ci aaya bi nii lii ñaawal lii di mbokkoo gi mu ni bu kenn di di reetaan benn kenn kenn bu kenn di ree keneen maanaam bu kenn di xeeb sa moroom laa yasxar qawmun min qawm ndax ka ngay reetaan wala nga koy xeeb amaana moom moo la gën mën na nekk ku oyof mbubb wala koo xamante ni ku xeebu la ci bëtu nit ñi waaye ku am cër la ci borom bi subhanahu wa taala moo tax yàlla mu ne bu kenn reetaan kenn loolu jumla bi yëpp la ko waxal ñëpp la ko waxal waaye dafa settiwaat ci xeebaate googu joxoñ ci jigéen ñi mu ni wala nisa um nisa bu benn jigéen ñi nga xamee ni daanaka adduna gi bu ñuy xool poñeetu adduna ñi ko gën a bëgg ci ñoom la bokk yàlla joxoñ lañ ni leen bu kenn di xeeb sa mbokk jigéen ndax da ngay xeeb ngir adduna bi amaana moo la ëpp cër ci yàlla mbokk yi naka noonu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di waxee ba tey ci mbokk yi ci mbokk bi dox suñu diggante ci xadis abi hurayra radiallahu anhu mu ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ngir mbokkoo gi rafet ci suñu biir mu ni laa taxaasadu bu kenn di iñaanal mboroomu jullitam lenn kenn ku nekk la ko yàlla sédde loolu yàlla moo ko dogal ci moom moo ko namm ci moom nangul ko ko wala tanaajasu bu kenn di def tajassus li gën a bari ci jamono ji tey mooy di luñ mbët mbiru jàmbur yi di luñ mbët te la ngay luñ mbët daanaka boo ko xamee du la amal benn njariñ lu dul ay lor sax la lay indil moo tax yàlla ni bu kenn di luñ mbët wala tabaaxadu bu kenn nit di bañ sa mbokk jullit di bañante wala tadaabaru bu kenn di won ginnaaw sa moroom maanaam ku ne dëddu sa morom jël sa yoon mu ni wala yabiu baadukum ala bayi adu bu kenn fekk sa moroom di waxaale ak njaay nga ñëw ci kaw waxaaleem ñëw di ca waxaale loolu mbirum pañetu àdduna la léeg-léeg nga gis koo xam ne day waxaale bay bëgg a jënd am ku ñëw dox double mise bi nee na yow mi ngi def loolu la nga def def nga lu ñaaw lu yàlla tere wala yabiu baadukum ala baad yàlla li mu teg ci aay bi ne mu ngi wa kunu ibadallahi ixwana na ngeen doon yéen ñëpp ay jaamu yàlla di ay mbokk ci seen biir ba tey yonente bi sallallahu alayhi wasallam di wéy ci xadis bi mu ni al muslim axul muslim jullit jullitay mbokkam laa yadlimuhu bum ko tooñ wala yaxduluhu bul ko won bu mu gis sa lex nit ki ñëw di soxla ci yow nga dummóoyu ko won ko ginnaaw loolu la ñuy wax fenetal nit ki wala nga won ko sa leex mu ne ko kenn def wala yaxqiruhu bu kenn tamit di xeeb sa moroomu jullit yonente bi sallallahu alayhi wasallam ginnaaw bi mu wax leen loolu dafa wax ni at taqwa haahuna mu ne ragal yàlla fii lay nekk mu joxoon ci dënn bi ñetti yoon la joxoon ci dënn bi ndax mu ngi koy waxaat ci beneen xadis mu ni inna fi jasadi mudura nee na am na ci jëmmu doomu aadama ak lumb ak cër boo xamante ni ida saluhat saluha al jasad kullu su sellee rek nee na loolu day feeñ ci nit ki la muy wax day feeñ ci nit ki la muy jëf wa ida fasada fasada al jasad kullu bu bu loolu ñaawee tamit nee na mooy feeñ ci li nga xamante ni mooy ay jëfam ak ay waxin moo tax mu ni at taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalath marrat naka noonu la yoon saa salaam ba tey woyee ci xadis bii di wax ni jullit de yii dafa xaraam ci mbokk jullitam mu koy jëmale ci moom bi ci njëkk tudd mooy damuhu nee na jullit warul tuur deretu mbokk jullitam ñun romb nañ ci xeex di gaañante waaye léegi rey ma moo xew wala wala hawla wala quwwata illa billah mu ni ñaareel bi mooy wa maaluhu sa mbokku jullit yoon saa sam nee na fexeel ba alalam alalam bu ko lekk mukk lu dul ci teyu bakkanam ñetteel mooy wa irduhu sa mbokku jullit fexeel ba deram na nga ko sàmmal ba du ci wax bul ci wax dara loo xamante ni lu gàtt la lépp lay wax ci sa mbokk jullit rek na nga ko natt sa bopp njëkk bu jekkee ci yow rek dina jekk ci moom nga wax ci moom lu rafet boo mënul wax ci moom lu rafet nee na nga maanu man kaana yuminu billahi wal yawmil axir falyaqul xayran aw liyasmut loolu yoon saa salaam wax képp koo xam te ne gëm nga yàlla gëm bés penc nee na na nga wax lu rafet ta nga nopp na nga wax lu baax lu yiw ta nga nopp أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين mbokk yi ginnaaw bi ñu santaate yàlla subhaanahu wa taala di julli di salmal ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam suñu tomb ba tey ci xutba bi mooy al uxuwatu fi diin mooy mbokkoo ci diin yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat ñu ba tey ci xadis ni laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsi amul kenn koo xamante ni ngëmam dina mat lu dul li nga bëggal sa bopp moom nga bëggal sa mbokk jullit mbokk yi lii di nag mbokkoo ci ci diine mbokkoo ci islaam an yan fadail la am an yan gëneel la am bi ci njëkk mooy ki nga xamante ni dafa bëgg mbokk jullitam te yàlla tax kooku yàlla da koy bëgg kooku yàlla da koy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi nettali mu ni benn waay dafa jugoon ngir seeti ji koo xamante ni da koo bëgg te yàlla tax da koo bëgg te yàlla tax yàlla yónni ab malaayika ci yoon bi nga xamante ni fa la waa ji jëm pour seeti ji mbokk bi nga xam ne da koo bëgg te yàlla tax yor jëmmi doomu aadama bi mbokk mi doxee ba egsi ci moom mu laaj ko yow fan nga jëm mu ne ko damay seeti ji mbokk boo xamante ni fee moom lay dem pour seeti ji ko malaayika bi ni ko ndax amul lu làqu ci ginnaaw seeti bi nga koy seeti maanaam ndax du intérêt wala lenn àdduna moo tax nga bëgg nga koy seeti mu ne dama koy seeti rek te yàlla rek tax mu ne ko xamal ni yàllaa ma yabal ngir xamal la ni moom yàlla subhanahu wa taala bëgg na la bëggante ci ay jullit loolu day waral yàlla subhanahu wa taala bëgg na yàlla nag bu la bëggee loolu la ñuy wax waliyullah mooy doon say kaddu yow yëkkati sa làmmiñ mooy doon sa gis mooy doon sa tànk lépp looy def ak yiw lay doon naka noonu tamit ci taxawaayu yowmal qiyaamati muy mashaahid yowmal qiyaama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nettali mu ni taraayu jant wa niñ koy wàccee fa mu yem ci bopp doomu aadama yi ba ñenn ñi seen yuur yi dañuy bax ci ñi nga xamante ne dinañ dund boobu tàngoor bu ñëpp koy dund ñii seen ñaq dañuy dem ba ñuy lab ci seenu ñaq ñii tàngoor bi da leen di jàpp ba ni ñu nekkoon jigéenu wë jigéenu jigéen gu wérul dinañ wasin ba jóg jóg gi li ñu wasin te duñ ko yëg ndax taraayu taxawaay boobu yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na am na ñoo xamante ne nag yàlla dina leen dugal ci suufu keram muy suufu keru arsh bi ña ca ña ca bokk mooy ñii nga xamante ni ñoom la ñuy wax léegi ci ñu bëggante ci yoonu yàlla ayna al mutahaabun la yàlla di wax ana ñi nga xamante ne dañoo bëggoonte woon te yàlla rek tax sama jëmm ji rek tax tey jii dinaa leen dugal ci sama ker gii nga xamante ni benn ker amu fi ngir bii ker yàlla jël leen dugal leen ci biir kelu aasi boobu noonu yàlla ci yàlla boole mbokk yi inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa digle ñuy digle lu baax tey tere lu bon tey rafetal jëmale suñu diggante tey di jokk mbokkoo gi nga xamante ni moom moo dox suñu biir إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا إلى صراطك السوي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله